Thank you.

Sénégal kenn du yow nga ànd ak sa ànd ak seen teggin ànd ak sa dignité ànd ak sa personnalité ànd ak sa fayda moo la bàyyi kii. mu ne dignité ak fayda ak personnalité mayut falax falax du la ko may yàlla na nga eggale yàlla na nga eggale yow rajo Serigne Saliou dan lay bàyyi nga joxe yónneen bi joxe nuyoo bi ak gi eggale. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi sàkku ci ñi fi teew ñëpp ñu am as tuut déglu ñu biral ay kàddu yoo xam ne ay kàddu cant lay doon waaye ay kàddu yóbbante lay doon wàccal ma buum bi tuuti wàccal ma buum bi wàccal buum bi wàccal buum bi maa ngi sàkku ci mbooloo mi ñu ndax nag tubarkàlla macha allah li ko day di rëy rëy rëy rëy balaa mu yéene tey pour nit rek am loo yóbbaale te li nga xam ne moo fi dajale mbooloo mi te ku ñu war a yóbbu mooy kóllëre wolof nee na ginnaaw lay féete waaye ànd boo gis ànd si nawle da cay gën damay wax ci télé bi bis ku set nga nit duñ ko maafe duñ yaasa duñ ko macaroni duñ ko nit njariñ li ma la président Wally boo ànd ak moom ànd ak nit dootu la saf ci àdduna président de la république rek ministre rek chef de quartier waykat ak feccikat ak ñëpp a yem ci yow benn atte parce que ni muy téye nitam moo tax. monsieur le ministre Mathieu jotaay tey bii fekkee naa loo xam ne ci sama gët tax na ma gën a yeesalaat sama ànd ak sama jàpp jëmm ci jëmm ji toog ndax lu tool yi bari bari bari bari lu ma fu mu yàgg fu mu dem carrière moo ko fa yóbbu kon tey lu mu bëgg bëgg bëgg ak lu mu bëgg bëgg bëgg waroon naa mën a jiital carrière am doo ko teg nit ndax nag waali waali waali ji lu coono yi bari bari bari bari bari ba mu dégg président tey carrière bi la tey laa gis ci samay bët mu instant bàyyi carrière bi ngir kóllëre gi ko yàlla boole jaww alaaj Ndiogou Mbaye ci tournage clip bu tàng jër lañ nekkoon 17 heures ba 23 heures ñu ngi tourné te pareeguñu waaye bi fi trois heures jotee président dama mën a war a jóg mën ko ba trois mu ne ma ah léegi mbooloo mi tas de ma ne ko ah, waaw waaw ñu moom fu mu fekk mbooloo mi gën a mu ne ma kon nag arrêté tournage bi te wuy ci monsieur le ministre métti. réalisateur yaa ngi toog cameraman yaa ngi toog maquillage yaa ngi toog ingénieur de lumière yi ingénieur de son yi ñëpp ngi toog di xaar ba ci jigéen bi tourné clip bi ma nga toog di xaar mu wàcc kër nga ñëw di gën a mu teg ci li ñëw ci woon bi léegi la fay ci bi xaalis bu bëri jëbbal ma ko dama moom laa bëgg nga sol ba ñëw ci bis bi. yaakaar naa ne li fii di président ak kóllëre la te kóllëre gi doon na fii monsieur président gi jottali ay kàddu cant ak ay kàddu ngërëm ci sa jëmm amul sa fay. nekk su ma ko jënd taal la fay ci ñoom bi xaalis bu bëri jëbbal ma ko dama moom laa bëgg nga sol ba ñëw ci bis bi kon yaakaar naa ne li fii di président ak kóllëre la. loolu fii nag so président ak ay kàddu ngërëm ci sa jëmm amul sa fay jërëjëfati ànd si nawle ak ànd fu koor nga ànd ak moom li ko ci yow li nga def ci ko ci yow nga bëgg ko te yàlla tax téye ko te yàlla tax jàpp ko te yàlla tax su wootee nga sacrifier sa liggéey sacrifier sa jot sacrifier sa njaboot sacrifier ko fi Sénégal wuy am na mag yow Angleterre am na mag yow Amérique am na si jëm ci tey yow boo xewlee boo ay bali fa doon loolu tàkk ak ay karo président dina ko tekki ñu la waaye yaa ngi as door ma ngi askan may si biir may si biir maa li tax ñu ànd ak yow du ñu am coow sago te bu dee taxalee ñu ngi dund lii la nit ñi lañ ko doyee mbooloo mi teew dëggoo loxo xaw day dee ndax du ko attan ci àdduna waaye li ñu doon suñu mariage suñu suñu jël bu ñu deelee yàlla nañ la yaay jiitu ak yaay jiitu ak say bu ñu takki jabar yaay jiitu ak say nag suñu jàngi doom yaay fay ditte bu ñu am ci suñu dund yaay def. te bu la neexoon nag ñu ay pour bu ñu góor ñu ne ñu dee wala ñu ko xooloo suñu liggéey tegoo bët suñu métier tegoo bët suñu ñaan ak suñu yàgg tëwee yàlla na nga fi yàgg tëwee yàlla na nga mucc yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla taxaw te yàlla nga yegg néew yoon. Maria Sow la fi di jëlee fi di jëlee amul fa magawa jaljalil waay soo takkul njaboot yi dem bala fee me yeg la muy rat bu ko yaakaar doo man ni wajul na soo ma baawa jaar doo man nim soo ñi wajur la soo ba baawa jal jal waay waay Thank you.

Soma Bawa, Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai non wul ma ne xaaral déew ma déew ma ñàkk jàll déew ma ñàkk rek xaaral jàll. sama diggante ak jëmm ji amul lu ma dépassé maanaam man su ma demoon ci diggu pari bi teg fa benn xalam bu ma ñëwee dinaa ko toog sama baat bi ma am ñaan sa sëy yal na barkeel su gisee ma dem jàpp lu waay di wuyoo da koy muuroo wala kër bu ko boo xoolee soxna si xam nga am na jabar na nga góorgóorlu ñu ngi ci jàmm yàlla na nga muñ parce que léegi ku ne xam ne ñun góor ñi ñooy muñ Thank you. ku dem mu jàkka lu waay di wuyoo doo koy nuroo borom kër bu foor ko yaakaar doo man dem soow ne wajur na soow ma baawa waaw yaa di cin kumba soo takkul njaboot gi daw baarabi yaa di cin kumba